wahab liman bihi yunaaji ma yurum rabbi bi nooxin wa bi ibrahima lixfir sunubi wakfini rajima wa kun bi muusa wa bi jaayi isa wa aqiyani dunya wa uxra buusa wa bi muhammadin rasulillahi alayhi xayru salawatillahi summa alayhim li yahab imana qad saaba alislaama wal ixsaana bi xormati siddiqi wal faaruqi julliya bil ixlaasi wa tawfiqi bi xaqi usmaan aqi nuurini وبعلي والد السبتين هب لي في دنياي ما أخرايا النور والعلو والمزايا بحق طلعت وابن زبير وحق سعد نجني من ديري وفي سعيد وابن عوف نجني من كل ما أخافه من فتني وبأبي عبيدة ما يفيد إلى جنابي وفي عني ما يبيد بحق عبد الله نجل العم أي ولد العباد كسر علمي بحق عبد الله نجل عمرا أنك في الدأب ما يجر دررا وفي ابن مسعود وجاه ابن سلام قن البلاء والدراء عين والكلام يا ربنا بحرمة العباس وحمسة عنك في كل باس بحرمة الحسن والحسين جلي في الدارين بالنورين الله بسم الله بارك برام تبا السلام عليكم ورحمة الله ñoo ngi nuyu képp kuy dégg sunu kàddu di nuyu baax Cheikh Mamadou Mountakha di ko ñaanal sunu borom yàgg fi lool tànn ak barke Sëñ Tuubaa tey ñaanal baax su ne moom sëriñ Modou Mbenda suñu borom yàggal ko fi lool te ànd ak wér di ak fépp foo mën a nekk gudd fan ak wér ak la ba li nga bëggee li nga bëgg a liggéey lépp ko di jàllee kaddu rek kaddu yoo la di ndigal jëwriñ bi say noomar di jëwriñ daara Alimam Cheikh Rafal di ko ñaanal borom yàggal ko lool te àggalal ko ay naaram barkeb Sëriñ Tuubaa mooy kaddu yu ndigal ñu war koo jàlle ci mbooloo mi yëpp rek di wax ne liggéey bi moom fi mu toll nii mu ngi dox te ñi ngi ci woo ñëpp liggéey bi nag kenn ku ne xam ne ne ndimbalu sëriñ bi tàbbi na ci ndax euh, général bi boo ko sëriñ bi joxee ndigal liggéey bi tàmbali boobu euh, sëriñ bi da cee def taw fooxam ba nga xam ne liggéey bi moom saa su ne mi ngi dox te kenn ku ne xam ne tey jii ñi ngi ñi ngi ñi ngi sëkk fondation bi ñi ngi sëkk fondation bi ndax kenn ku ne xam na ne liggéey bi li tax mu demee nii ni ko général di waxee kuy kuy defal kuy defal ki gën da koy defal li gën moo waral fondation bi ñu finan ñu financé ci ñu financé ci lu bari ngir fondation bi mën a dëgër ndax kenn ku na xam na ne ñu bari dañ jàpp ne mbaar moom da ngay jël rek yëkkati simpi waaye dañ ko defar fondation bu baax ciment bi 100 pour cent ak fer bu baax defal semelle yi di eh, di dee yi gas ko 1 mètre 1 eh, mètre 90 nekkoon néew bi ñu gas ko ko mu yaatu 1 mètre 60 ngir lépp mën a dëgëraay mbaar bi ngir lépp liggéey bi mën a am sécurité boo xam dana mën a yàgg lool ñu ànd ko nag bokk bàyyi neex yàlla faal yi eh, si jëriñ si lañ Pape na ne liggéey bi saahir bi saahir si am ndax kenn ku ne ñëpp dégg nañ ne ko rëdd def ko mbaarum Touba Safar muy mbaarum Touba Safar mbaarum Touba xam ne tey jii boo boo wàññee yi li mu poté amagun ñi nga amagun 19 poté lañ lañ lañ sologun moo taxawagun 19 poté yi nag mi ngi toll ak mi li ma wadd yooyu tollool tey jii ci lañ toll ba noppi 19 yooyu boo ko jëlee mooy limu bismillah arafu bismillahi rahmaani rahim kon liggéey bi lépp ay baatin ndax boo xoolee jataa yi jàll yëpp waxoon nañ ci baatinu mbaar mi ci guddaay bi ak gàttaay bi mooy Touba safar gi waaye waxoon nañ ci limu poté ñaata la war a doon ndax kenn ku ne xam na ne mbaar mi 35 poté la war a doon fanweeri poté ak juróom di limu ijaaba di boo jëlee juróom juróomi ijaaba la jox boo jëlee ñaari waxoo bi tegaat ci ijaaba 35 la lay jox kon loolu ba léegi bokk ci baatinu mbaar mi mbaam mi tamit bi ñu tëjee fondation bi kenn ko na xam ne juróom-benn kër la di dabu ak dabe loolu mooy lan mooy lim bi dabu juróom-benn la dabe juróom-benn la kon nañ xam ne mbaar mi lépp baati na képp ku ci def sa addiya wala nga def ci sa sa ñaq wala lépp loo ci mën a def na la leer na la ko fay ndax na ko sëriñ may jaxat di nit cërum nit ku bëgg bëgg ba fa nit nag boo boo boo gisee da ngay dem jëli ko mooy suñu wootee nga gis te ne lee mën nga caa def sa alal da dem jëli cër ba nga ca nga def ci sa alal bu fekkee mën nga caa def ci saw ñaq nga def ko ci am cër ba ngir ëllëg fa nga xam te dara du fa doy boo bu la ko sëriñ bi génnee nga te sëriñ bi nag kenn ku ne xam na ne sëriñ Tuubaa ñi koy liggéeyal wax na leen lu wér ba ëllëg njëriñ la ñu war a lépp sëriñ bi wax na leen ko kon nag liggéey bi ñu ñëpp nañ ci tàbbi si ñi ngi woo ñëpp ci liggéey bi ñi ngi woo ñëpp fondation bi ñu ngi koy sëkk tey solo gun nañ 19 poté li ci kan kanam kon liggéey bi day dox rek sëñ bi mi ngi ci biir saa su ne mi ngi saytu liggéey bi di di gën a santaane ñi ngi ñi ngi jégg bu baax ci ci ci ci ci kaddu yi di wax ne kaddu yi jëriñ la dañ dañ ko wayul kon di wàcce foofu sunu kaddu rek di woo ñëpp jërë ngeen jëf yéen loolu liggéey fa laana root gaa yi nelaw ba naan xureet ba luy ginaan ne kurkureet faal njëga moo ko xewal daawul doxi lu bamba wax mu daal dinaaw foore juree ja sant saaw naan ko da ngay deltu ginaaw jàngil muriidu dum pexe la war jannatu ma waa baay faal yaa moom akee ca xel kom jaaga ñu fay lem réew la war jannatuma waa Baay Faal yi ñoo ko moom ana murit waa gura murit waa gura murit yàgg yokk war fekke man tal nan ko sëñ am di muulu Mustafa